Sénégal fu mus a am ambassadeur Palestine. donc kon ñun suñu dëkk ñun dañu mus a comprendre loolu léegi nag daf ci am lu ci daan am mooy affiche kabooy jouer indo. loolu nga jàpp. waaw pour gouvernement yi fi jóge wala. waaw yi fi jóge moo tax léegi nag loolu peut-être peut-être ak rupture bi nga xamante ni ñi fi nekk nii gëmloo nañu ko. Hmm. ñu gëm ko am yaakaar peut-être di geste bu bu doole la ci ci lu Ousmane Sonko def. kon da nga jàpp ni peut-être ragal gi euh, Ousmane Sonko di wax. ci peuple euh, musulman yi nga xamante ni ñoom dañuy fësal seen intérêt moom jàpp na ni seen intérêt la ñu jiital. Euh, pour jàppale ñi nga xamante ni kii nga gouvernement bu bees bi euh, bu fi jógee dañ doon doxale noonu ci suuf. wala non xam nga man ba léegi nii sax man dama ma rek maa ngi koy wax si benn interview ma ni service secret fii Sénégal service secret bi. Hmm. israéliens yi ñoo ko yor. d' accord ñoo ko yoroon de. Ah xaw ma nag changé nañ ko. jot naa nag sànq ci weewu bëy ñu ne Ousmane Sonko jëlee na leen fi quoi ñoom yoratuñ ko. ma ni alhamdulilah. service secret bu waaw. israéliens yi ñoo ko mus a yor ñoo ko mus a yor est-ce que comprendre nga ma expliqué. fi wala jóge fi am na wax ne ma wax loolu mu ne ma loolu amatul yàggul nekkatuñ fi ma ne ah alhamdulilah mais li wér bu moom mooy. Israël dafa yàgg am doole fii te pourtant Sénégal ñu ngi doon jàppale Palestine ñu ngi en réalité tubaab bi dañu am seen fulla rek yow da ngay nekk un état boo xam yow da ngay am sa fulla boo amul sa fulla ñoom ils vont ils vont li ñu bëgg dañ koy imposer ko sa dëkk yow nag léegi fekkee amoo fulla ñoom ñu doxal tu boo amee fulla nag nga taxaw sa taxawaay léegi nag man damay wax dañuy wax ni Ousmane Sonko Ousmane Sonko lu mu def rek man xeeb naa ko man ko à chaque fois loolu moo tax may jàppandik booy tout le lu mu def xeeb nga ko man lu mu def xeeb naa ko ak a billaahi lu mu def xeeb naa ko et pourtant chaque jour ñu vaar ko man waaw non anyway c'est-à-dire xam nga loolu xam nga sax dañ koy vaar rek waaw mais xam nga loolu c'est tout à fait normal parce que vaar dafa xew dafa jot ah dafa xew mais est-ce que tamit ci koo xamante ne xam nga ñun euh, Sénégal dafa am loo xamante ne loolu lañ fi daan fekk. Mhm. loolu lañ fi gisoon euh, ñu bugg ko fee jëlee. Mhm. ndax am loo xamante ni benn benn benn kii boo xamante ne étiquette wala sax euh, loo xamante ni ñoom ñi nga xamante ni ñoom lañu fi fal loolu lañ ñu wan mu nekk ci projet bi ak ni ñuy doxalee. Mhm. ñu ne ah ñii kat. lii la ñu woote ba sax ci seen ci seen slogan mooy jub jubal jubbanti. Mhm. tey bu ñu demee ba ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk lañ doon wax di waroo ak la ñu diggee woon ak sénégalais. Mhm. waaw loolu moom xam nga man li ma ci wax à chaque fois man sénégalais xam sama position. Mm. man j' étais très clair ci ay ci samay samay ci loolu man ñoom bi ñu faloo man dama ko waxoon bien avant man may ñoom ñu egg ci pouvoir bi. ci pouvoir bi man nekk activiste man je suis un activiste. man dama wax ma ne ñoom bu ñu faloo bis bu ñu demee ba toog ci palais bi. ci laay dellu ginnaaw taxaw fu ma taxawoon yor sama yat leen surveiller. Mhm. bu ñu defee lu baax nga wax bu defee xam ne lu baax la dama koy apprécier ñaan ñëpp apprécier ko su ma gisee lenn loo xam ne baaxul dama koy wax ci kaw kenn du ma seeyal ci sa bopp may déewante ak yow ci suuf sénégalais du ñu xam lu xew man meluma noonu. exactement pour man sénégalais soxla nañ benn sentinelle koo xam ni au moins dina taxaw ñu xam ni kii farul ci Ousmane Sonko. Mm. farul ci kee farul ci kenn ki fi mu far mooy le peuple sénégalais man moo tax man ma taxawee position ma taxawee. Mm-hmm. mais dama ni. waaw koy vaar moom c'est parce que moom moo jëloon ay engagement moom wax ay waxam. waaw ay engagement yu bëri sax. waaw mi ngi noonu mais nag yooyu tamit moo yokk tax ñu ñu teg leen tey ci nguur gi. waaw moom laa lay wax nii léegi lool nag. léegi nag nañ doxal xool de façon yi mu waxoon yëpp di ko expliquer yëpp ñu ngi koy topp à la lettre te amul ci leneen loo xam ni nañ ko bàyyi mu doxal ko doxal boo xamante ni ni mu ko waxoon doxaloo ko noonu. ndax instant bi jàpp nga ni instant bi ñu ngi doxal loolu. non bëri si loo xam ni méngoowul ak li mu doxal li ñu waxoon. Hmm. nanguñ sax si yoon boobu noonu. ñu taxaw fenn mais fonds politique yi nga xamante ne waxoon nañ ko. Hmm. moom mu yëkkati woon ay kàddu ne fonds politique yi dafa xaraam. Hmm. ku yëkkati ay kàddu yooyu te ñoom dafa mel ni tax moowu xaraam. Mhm. comme yow ci li ngay prone tout le temps en tant que activiste euh, bu demee ba utiliser ko mu moom it mu continuer di dund ci loolu. Euh, mu nekk ay mbir yu doy. waa waaw xam nga man man fond politique. Mhm. bi man maa toog Ousmane Sonko def ak moom interview télé ci poste. d'accord sama chaîne YouTube ma posé ko question yooyu parce que dafa ay question yoo xam daf ma ñor. avant muy toog ci nguur gi wala après. laaj ko. boo nekkee président maanaam tey yéen bu ngeen jotee pouvoir la ngeen wax ci caisse noire ma laaj ko langeen wax ci tarixa yi lii gis nga lii coow lii Cheikh Omar Diagne di wax man waxoon laajoon naa ko Cheikh Omar Diagne laajoon naa ko Ousmane Sonko mu wax ma ne ma dafa am budget bu ñuy voté assemblée nationale pour jàppale ko tarixa yi man gëm naa ni sax assemblée bu tëbee bu ñu ko voté ba nga xam ñoom peut-être def nañ li war a def ba mu am ay député digne de leur nom ay budget spécial pour màggal budget spécial mu bañ a ay ay saak ñuy gàddu di ko dugal ay Touba wala di ko dugal Tivaouane wala di ko dugal yooyu noonu xaalis yooyu noonu ñu géré ko ba nga xam day nekk lu ñuy voté ñu xam ne xaalis bi fii lay jaar bañ a nekk lu ñuy foowee xam nga mm. jox nañ ko sëñ bi ñu xam ne contribuable bi la comprendre ba am expliqué donc yooyu peut être xëy na am na am na yu bëri yoo xam doo ko mën a wax parce que fig parlement bi tasaguñ ko da nga gis benn gouvernement boo xam nga ni lii instant yi majorité lii moo fi nekk lii la demee nii nii nii comprendre ba expliqué bon ma si parce que man dégg fonds politique. man dégg naa man. man man moom moo waxoon ne caisse dafa xaram. wax si fonds politique man maa déggaat jomaay mu ne caisse noire ñoom du ñu dindi fonds politique yi. ñu ne ah, ko dindi dañ ko dindi lañ wax. waaw sax loolu dafa ñu waxoon. parce que bu nee fond fond politique koy remplacer. moom laa lay expliquer nii c'est la même chose. moom laa lay expliquer nii amul différence. donc yooyu yëpp c'est des choses yoo xamante ni yooyu ñu war a xoolaat la. parce que tamit xam nga dama wax ma ni ma ni nit ma ne ma ne mala buum lañ koy yeewee mais nit kàddoom lañ koy yeewee. bien gis nga man gars yi dañuy wax ay réalité état xamoo gouvernement da ngay dem gis man gëwuma yooyu dañu war a fonk kàddu gi ñu seqoon ak sénégalais gis nga xoolal sa kàddu fonk ko ba nga dem ba gis contraire bi nga taxaw nga ne sénégalais yi li ma fi fekk lii la ak lii ak lii kon lii moom bu ma ko bëggee def faaw lii ak lii am est-ce que pare ngeen pour def léegi. mu tegal ñu lu waaw man loolu laa gëm. man gëwuma ay noo lii waroo ko yëg ñii dafa war a am secret d'état man gëwuma yooyu. ñoo leen fal parce que man secret bu amee rek pour man mooy am na njubadi gu ci nekk man loolu laa gëm. démb démb démb sama frère sama sama sama xarit. Mm. Baye Zal section jaxar na ma yaayam moo feebar def choc dafa daanu yaa na ko yàlla yëkkati mère bi tànk bi dam ñu jël ko yóbbu ko hôpital euh, CTO ñu téye ko fa presque six heures temps yoo xam ne ñu ne duñ ko jël CTO amul amul place. waaw ñu jigee fa dem ak moom principal mu nekk fa presque ay bi fa pour ñu jël ko rek daanaka mooy loolu. Mm-hmm. la nga xat ay ay nit a ngi foofu noonu nekk fa ñu war leen opérer urgence ñu toog di xaar urgence ñu toog di xaar ay une semaine. urgence principale bii nii. kon léegi lan mooy rôle fond noir. ay caisse ay caisse secret yu kenn xamul yoon noonu ba léegi nii cest man dafa am yoo xam dama gëm ni priorité la quoi. te ñun on est pas là pour pour pour des gens ñun on est là pour le Sénégal ñun on est là pour pour pour santé Sénégal mucc ayib tey bi nii nii instant yi wax yow nii vraiment principal ils ont tous les problèmes du monde. ay malade ñi ngi fa taxaw di am ay sérieux problème te ñu bientôt dinañ def 6 mois. mais moom laa la expliqué cest ba léegi nii CTO boo fa demee doo am place médecins yi ba tey bu ñu lay faj ils ont tous les problèmes du monde respecté wuñ sax au ñoom ils respectent même pas sax seen seen seen seen patients yi seen patients yi principal même chose la fa newoon depuis y a six mois avant bi fi Macky Sall nekkee ba tey moo fi nekk léegi mooy continuer léegi munuñ bi xaalis bi ñuy wax ay fonds noirs yooyu noonu xam nga caisse noire je sais pas quoi mm. fonds politique yi léegi muni boobu noonu lu tax mënuñu ko jël ñu dugal ko ci hôpitaux yi ñu xool lalu problème yan problème hôpitaux yi mi dem buntu principal wala dem buntu euh, CTO di xaar ay résultats analyse di fanaan ci tuuti hôpitaux yi di fanaan ci hôpitaux yi ñuy daal ay mergadu foofu noonu. mais ñoom est-ce que ñu ngi doxal seen projet bi sax. en réalité li am solo xam la la mooy ah. gis nga nit booy wax da ngay wax te yàlla rek tax. Hmm. yàlla bu la dimbalee da ngay dimbaliku dimbali mooy lan mooy amul ci àdduna koo xamante ni mën na bëgg ajara yàqule te yàlla bëgg ko ajara yaaxule exactement am na ko amul ci àdduna koo xam ne mën a bëgg defaral ajara te yàlla buggul ajara defarlu ajara defarlu we mhm. c'est-à-dire il faut nit boo gëmul loolu ah yow sa lépp danga koy teg ci tâtonner calculer yaakaar su ma waxee li diw mere ma mm. loolu moo tardeel Sénégal te Sénégal bu ñu moytu dañuy gën a sonn xam nga lu tax dañoo bàyyi créateur bi topp créature yi d'accord mais en réalité ñoom ñëpp ñoo la gën a xam ni Ousmane Sonko tànk yi mu waroon doxee dëggantaan doxewu ko doxewu ko mhm. koy xaar ba léegi nag waaw léegi nag gars yi boo waxee dañaa la non nañ bàyyee dafa gaaw may leen ko deux mois may ko trois mois may ko quatre mois. dañ ko may temps dañ leen may temps mais en réalité dafa ñoom ñoo gaaw a wane leneen ñun ñu gaaw a wax. est-ce que comprendre te dañoo gëm ni Sénégal dafay changer ak ñoom. loolu lañ leen di parce que xam nañu ñoom yéene ba ñu amoon ba ñuy jug ñun xam nañ ko léegi nag ndax occidentaux yi nañ leen ci bàyyi ndax liñ fi fekk système bi dinañ leen fi bàyyi du leen ci bàyyi mais ñun peuple bi ñun nous sommes souverains. Mm-hmm. ñun ñoo war a taxaw jàppale leen ñoom léegi nan lañ leen di jàppalee kenn du mbër muy bëre kenn du ko jàppale daanoogul nga koy tàccu daan kon gañe nga. Mhm. da nga koy wan yoon bi. da koy non doo ko wan yoon yaa ngi soo a am combat. waaw. <laughs> est-ce que combat ma expliqué. jàpp ni dama jàpp ni ñu bari tey euh, partisan far bi tax na bu dimbaliwuñu wuñu pouvoir bi fi nekk. Ah, waaw parce que dimbali leen mooy déjà dànqaafu leen wan leen ni le peuple est radical. peuple bi du négocier si yenn yi nga xam ne engagé wu ngeen ko parce que du ñoom. ñun xam nañu bu doon Ousmane Sonko kese benn clic la def Sénégal ni ñam ku nekk lu sa lépp baax ñun xam nañu bu doon Diomaye kese day def ni rek Sénégal baax mais dafa am lu ñu fi fekk am ñu ñu fi fekk système boo xam ne racine yi dafa sori sax dëgër ba pare am nit yoo xam ne multinational ñuy dundee loolu ba pare moom ñoom ñoom seen jëm ñu dund ci ñu bëgg taxaw ne dañuy dindi loolu ñoo ñu ëpp leen doole fuuf lay ñun peuple bi rek ñoo mën a def benn activiste bi ngay gis mu taxaw dem par exemple dem def manifestation ci ci ci buntu ambassade Ukraine. taxaw ñu ne euh, activistes yi maanaam front pour le euh, le retrait des bases militaires euh, françaises fii fii ñu taxaw dem def manifestation parce que ambassade Ukraine bi wax na lii am na si loo xamante ni gouvernement mënu ko. mënu koo def. mais ñun ñoo koy def ñun ñoo koy def defal diplomatie Sénégal statut Sénégal ci peuple sénégalais mais ñoom ko xamul xamoo ñii dañu yaakaar ni Ousmane Sonko dafa war a rose lépp war a rafet mbir du noonu lii politique la. elle est plus large au fait est plus large sax dafa dafa gën a yaatu. donc il faut nit yi xam ne ñun ñu ngi ko séexal bu ñu leen toogee di leen tàccu rek lu ñu def ñu ne waaw tubaab yi dañuy lépp mi ngi delluwaat ci tubaab yi te commencé na. te lu gën a pire li dundal li ñu dundal Macky Sall dañuy dundaat parce que Macky Sall bi ñu ko bàyyee 3 mois yu njëkk yi ci la signé ay yoo xam ne ci la Sénégal peut tëxee ci nguuram ba jon yàlla tey jii nii. mais ñoom ñu ngi liggéey ci côté boobu tamit. espérons. waaw ñu ngi liggéey ci côté a fas yoo ko làbbali critique c'est bien les critiques mu def erreur nga taxaw wax ko gis loo xam ni parce que on dañu dañu dee ay nit ñoo dee. waaye itam est fekkuñu fi loo xamante ni Karim euh, ñoom comme li ñu wax ni dañu nekk di jub di jub di jubbanti. waaw est-ce que jubbanti boobu noonu moo leen moo leen téye ba léegi nii euh, pendant quatre euh, cinq mois bientôt six mois. ñu nekk ci jafe-jafe yooyu noonu ba léegi ni euh, euh, mbir yi wala sénégalais yi amaguñu loo xamante mën nañ ko teg seen bët yi ni ñii lii ñu ngi koy liggéey. waaw mais xam nga xam nga man en réalité man damay wax maa ngi koy wax la fa parce que ma ñun ajara ñun ajara ñun laajtewuñu résultat ci ay 3 mois ci 4 mois 6 mois koo fal 5 ans doo ko laaj résultat ci 6 mois. waaw dañu waxante dëgg quoi wala 4 mois ñun démarches yi la ñuy wax chaque fois dama soon joxe exemple di wax ay oto buy dem Touba yoonu Touba bi xam nañ ko yàgg nañu dem Touba su demul Touba dañuy xam ne oto bi demul Touba su bu chauffeur bi jógee rek dañ xam fekkee dafa jaar beneen sens ñoo ko sooy yoonu Touba du nii de cest loolu mooy suñu problème te dañoo comprendre aussi géopolitique Sénégal xamuñu géopolitique. gis gis ni malien malien yi ni ñuy informé xam lu xew comprendre tout ce qui se passe dans ce monde là Sénégalais yi meluñu noonu comment les occidentaux ni ñuy gérer pays africains yi di leen manipuler di leen gérer di leen contrôler Sénégalais yu bëri yu ci bëri duñ koy comprendre. te ñun ñoo xam ne ay activistes yàgg ci xeex bi dem di xeex ay panafricanisme nekk ci panafri di xeex pour ay souveraineté monétaire di xeex pour moom suñu bopp jëlee fi multinationales yi di xeex pour armée française jóge fi di xeex pour xeex pour ñi nga xam ñoom ñoo xeex ba rey ba rey xam nga yooyu yooyu yëpp saa yooyu ñun loolu moo tax ñun ñu comprendre xam ni ñii dafa am fu ñu nekk baaxul moo tax ñu doon fëgg table bi di yuuxu mais comme li ma wax dafa am ci loo xamante ni dafa nekk ci suuf comme xam nga nee nga sànq euh, racine bi ci mhm. système bi dafa dafa dëgër dafa dëgër torop mhm. ci jubbanti googu noonu la ñu nekk mhm. ci 4 mois bu ñu bu ñu bëggee rek ñoom ñu commencé rek liggéey bi nii rek après ñu commencé naan leen baaxul baaxul baaxul baaxul est-ce que euh, euh, affaire yi du dem ba ñu ni voilà ñii dañuy critiquer juste pour critiquer waaw non non xam nga moom laa la expliqué même ñoom sax loolu ñoom Mhm. ñoom loolu la ñuy wax comme bi ñoom eh, dañuy wax a ngay gis ñu naan non dafa teel ak benn liir mënul juddu tey màgg tey kërëb kërëb te loolu la ñoon waxal Macky Sall dañ wax léegi fi àdduna toll politiquement dafa am yoo xam ni ñun duñ ko c'est-à-dire léegi temps boobu amatul temps bi amatul parce que sénégalais ñoo ko soxla démarche politique bi ay démarche la affaire yi démarche la rek léegi démarche politique yi nag moom mooy yeggale affaire bi foofu noonu mais ñun mënuñu xeex xeexal benn état xeexal benn gouvernement ba mu war a yegg ci pouvoir bi ba mu dem ba toog ci pouvoir bi ñun ñu taxaw ne dañ koy xeex wala ñu ne non ñii tey nañ fexe ba indi ñu résultat en en en six mois quatre mois. Mm-hmm. mais loolu c'est même pas intelligent loolu loolu ak ndof la. léegi nag problème bi mooy. Mm. chacun a sa façon de faire souvent dama koy wax ma ne quand le président parle c'est le président qui parle quand le premier ministre parle c'est le premier ministre qui parle. Mm. quand le général parle c'est le <laughs>